Cheikh Tidiane sama waay la jàmm ñal jaara busuk wala man se bi jaara salaamaaleykum mbokk yéen ñi seetaan Click Dakar 221 nee naan saa su eh, ak eh, eh, ndaanaan yi waaye ku nekk xam na ne aussi tam lépp loo xam ne actualité la euh, temps réel dañ leen koy jox euh, moo xam ngeen nekk bitim réew moo xam ngeen nekk Sénégal foo mën nekk moon rek ngeen seetaan Click Dakar 221 te di wax ne ngeen abonné partagé laal ki xam ne moo di bi xaar leen seen émission waaye tey dañoo ànd koo xam ne euh, duñ ko présenté Sénégal ak diaspora bi muy Babacar di tëgër mag muy Babacar Framaren laa a waxee parce Seck moo tax ñu bëri bàyyi ko xel mais mu may jooytu naan boobu ba léegi yàgg na ci Wally mais mënul gis Wally Ballago Seck waaye nag waalee ni euh, ñaan gu nangu day sonal borom xëy na la ku baax la ku ràññee la ku xam nitam la lépp dina yemb incha allah Babacar tey dañuy waxtaane actualité muy diggante diggante Adamo ak Sokono stress xeex bi yàgg na diggante euh, ki nga xam mooy euh, Californie Ahmed yéen tiktokeur mooy seen problème baax daal di maa di la di la ñaanal jàmm bu baax a baax di ñaanal waa Killing Dakar bu baax yàlla defal leen jàmm guddal seen fan bu baax waaw coow li bëri na trop diggante Adamo Ahmed Soko coow li bëri na détails yi bëri na mais li ëpp sens ñoom ñëpp mooy ñu gën a xoolaat seen bopp. ku ci mel ni Sokh Adamo ni muy mel mel na ni ba pare mu baaxee ñëpp xam nan bu bone ñëpp xam nan mais Adamo képp xam na ne li muy def li muy liggéey ni maanaam yàgg na koy def ay at kon boog Adamo maanaam ku xuloo moom yaa ko tooñ moom jikko yi euh, euh, moom la waaw ndax Adamo ku ku ko ku mën a xuloo moom rek man dama lay jox toor ndax Adamo maanaam ku yaakaar naa ne doon na nit boo xam ne bii ku nekk moom ku nekk war nga ko mën a comprendre. comprendre ci côté ni mel mel na ni ba pare. comme li muy def xam na ñëpp xam na ne mënu ko kenn ko ko bàyyiloo ci àddina. lu muy def kaa yi muy def. dugal ay yaay jàmbur dugal ay papa yi jàmbur non non bu ko bàyyi woon du dem ci Soko. non bàyyi na di ko traité ay cas di wax. Ah. di wax ko neex di yàq. mais mais dañoo ne Soko moo njëkk a saaga Soko depuis 2005 ba léegi mu ngi xaw ma 2006 saaga. Mhm. bi Adamo 2019 la commencé ok oui saako Adama wàññi na lu bari bari soo ko itam wàññi na lu bari mais feerante ci seen biir nga ne en Adama mënul changer lu a changer nag tamit ndax dafa jël doomu jàmburam doomu jàmbur takk ko indi ko ci këram mu doon xale bu rafet boo xam ne Sénégal mën naa ne Adama kenn dàq ko jabar kon vraiment Adama war naa mën a xoolaat bo su taxawaay bu waax mais tegal ci micro tegal ci avant ak après moom. waroo génne yu bëri parce que tamit waaw loolu baaxul avant ak après laa leen bëgg a wan nii taj daal di def nii am. léegi nag gars sama numéro yi baa du génn léegi nag gars yi dañuy njëkkee Sokono SRS euh, dañuy wane fi ñu njëkk wane mooy maanaam néeg bi yaayam dëkk yaay Sokono SRS fii la dëkk waaw Soko néeg yaayam a ngi nii léegi. avancé kii mooy yaayi Soko gis ngeen ko nii photo bi mu tegoon dafa amoon yaram ba muy doog a ñëw la di mos tuuti lex yi génn mel ne arbitre bu retraite léegi mi ngi nii ngaamam gi comme ay karmetu muus kanamam gi noox na comme ay porte oto ba kanam gi fa mi Ama Balde gi mi ñam gi ne tuunu golo mi ngi nii léppam sensé na melul woon comme bu njëkk léegi dañuy avancé yaayi Soko moo nekk di na bugal fu ne tari biir baa ngay jooy xool ko biir ba damay ragal sax bu baax dal ci kër yaayam Bibil Seck ba tey boo ko laajee mu ne sànc la nekk yaayam moo nekk ci condition yi ma ñëw xoolal fii la yaayam di entraîné kat yi maanaam yaayu soko moo nekk nii néeg baa ngi nii léegi bu amee ay gat ci sees yi la koy teg sees yi sees yi la koy teg sees yi suñ xaj bi nekk suñ kër buñ ko dee sàgg kii sàgg kii sàgg xaj bi ci sees yu mel nii lay toog pour mën a jàkkaarloo xaj bi mën koo bomb soko nga gisee comprendre nga. Euh, Idaale comprendre naa. voilà euh, dafa ñaaw lii lii lan moo ko li ngay wax mooy ñaaw ba pare li ma gën a metti kan Adama mu ngi euh, Europe lan moo fexe ba jot vidéo yi man léegi li nga gis naa ko Idaale yi mais ñoom ñaar ñëpp laay balaamee ñoom ñaan ñëpp. Mhm. muy Soko muy Adamo. Mhm. ñoom bu ñuy soo nañ yem ci seen bopp. waajur du moroom comprendre nga. yaakaar naa ne sa sa waajur. non non soo dëgg la mais mën naa nekk monde sax mais bu ñuy soobis wala ñuy waxante lu ñaaw nañ yem seen bopp bàyyi seen waajur yi waajur du moroom comprendre nga lu mën di xew nan bu doon saagaate sama yoon du ci nekk mais bu jëlee seen yaay ji taf na ki yaay soko di wax lu ñaaw lool dafa mën a ñàkk àddina dara jaru ko àddina dafa jeex ba pare comprendre nga ñu xoolaat seen taxawaay bu baax aadamoo ku ne xam na ne maanaam bu fekkee maanaam melekaan wu ñaaw wala defekaan wu ñaaw da def ba pare te yàgg noo koy def loolu moom Sénégal ñëpp xam na ne non non non non non non Soko Soko maanaam dama yaakaar ne moom man Soko waxut jàppee ma ko sax nit. jàppoo ko nit non non. ko jàppee ma ko nit. parce que Soko bu ma ko bu fekkoon nit la moom yaakaar naa dina am na yu ñàkk fay doy détail yu ñàkk fay doy doo ko ci dégg. waaw ndax yu ñàkk fay di nit bu ma dem ba réew war a dimbali sama yaay teral ko wutal fu ma ko dugal nekk ci internet bi. ah topp ay aada def ay live di saagante moom ay saagaay ndey say bokk di la seetaan ñàkk a respecté sa yaay mooy loolu. Sokone nan xoolaat boppam bu baax waaw na xoolaat boppam xam ne waajur du moroom sa waajur boo ko amee yaakaar naa ne war nga ko mën a fayee lu fexe ba teral ko mu nekk ci condition yu baax wala soo waxee jàmbur tooy tudd saaga di saaga ndey jàmbur baaxul. di wax di waxante lu ñaaw xam nga Cheikh Ahmed Cissé moom maanaam kooku góor su alku la dafa alku kooku da waru man sax wax ci moom ndax dafa alku ndax mënutoon ñëw ne day jàngale day ñaan comprendre nga ba Sénégalais yëpp di ko jox bopp borom àndalaa buri comprendre mu dem ba maanaam Sénégalais yi ñëpp koo ne mu daw la ndax lan melkaanam bu bon di wax wax ju ñaaw bu jëlee Sénégalais yi tey lu mu wax suba maanaam dafa jàpp ne si daal maanaam euh, Sénégalais yi ku mu ne fontoo Cheikh ko Cheikh Ahmed Cissé ñëpp naan Cheikh Ahmed Cissé day nitu dëgg la du dara. gars yi nappante rek. Mhm. waaw Cheikh Ahmed Cissé du nit ku baax mook soo ko ñoo yem. ak Adamo ndax bu demee dugg ci cadre Adamo car di waxante ak Adamo lu bon ñoom ñoo yem c'est la lii Soko di di di di Adamo di Cheikh Ahmed Cissé man gisuma ñoom ñëpp gisuma leen baaw. Adamo sax tane ndax Adamo melkaanam bu bon ba mu simmeeku ba Sénégal yëpp xam na Adamo mii simmeeku na def taati neen naan samay taal ngi kooku mënut a baax ci àddina kooku mu waxaale wuñu ko waaw. bu ko ku ko topp nag yaa bëgg a bon rek mais aada du nit ku baax man doo dëgg yàlla boñu ma ko dara mais aada li muy def neexuma neexu sénégalais yi te daa aada c'est normal ñu wax ko dëgg dafa war a wàññi. dafa dafa war a wàññi. dafa war a wàññi ñoom ñëpp war a wàññi muy aada moom muy soog muy keneen ak keneen mais ku mel ni soog aussi tam gis nañ ne laaj fam tout le temps saaga gàttal dëggal yàlla na ma yàlla jéggal tam ci sax mu loolay def Euh, ak jaxase li nga xam ne moo di day gis Sénégal yi nekk fi tey di góorgóorlu loolu yàlla wax na ko en fait loolu ñuy def. non Soko ñoom ñu leen ñu déglu Soko xam nga Sénégal. ñoom Sénégal euh, ku mel ni Mame Ndiaye Savon ku mel ni Mamy Cobra ñoom suñ dégloo Soko ba Soko jox leen jaxase leen ñoom ñoo ñàkk fayda Soko ku mu jaxase rek da ñàkk fayda ndax maanaam Soko du nit. ponkalam lam jëm moo xam moo mu ngi ko toll nu ko neex. mais day teg ay génn ay preuve xam nga ay audio ay preuve ak ñoom ñëpp ñoom la rek maanaam soko kuy dem ba koy jox say say audio wala say preuve mooy nekk ci internet bi da lay yàq ngay koy tontu yow yàq tey man soko su ma doon saaka sax du ma fayu ndax du nit soko du nit soko bu doon nit yaakaar naa ne dina doxale neneen dem ba réew ma dina jéem a wut kër. teral teral yaayam. nekk ci condition yu baax lii bu fekkee dëgg la sax Sokho. Ah, waaw kon kon Sokho waaw ah. bu fekkee bu fekkee 2005 ba léegi mu ngi réew ma. munul tabax kër gu mu dëkkal yaayam munu ko wutal appartement bu baax. Sokho tekkiwul dara. Sokho kon tekkiwul dara. ndax nit moom kuy góorgóorlu ku nekk sa yaay moo tax. est ay noonam moom la rek lépp moom la rek. muy la rek ndax Adamo maanaam ñëpp xam na ne maanaam ku ko laal laal laala kay lu ko waaye di waxal waxal Adamo bu dee wax lu ñaaw. waaw dafa aay ci li muy def waaw dafa aay ci li muy preuve. kon moo superposé Adamo lu mu bëgg xam da kay xam loolu yàlla may na ko. lu mu xam da koy moo tax dafa jar moytu. aada kan moo ko filmé lii kan moo ko envoyé loolu tam dafa ah. non lépp bokk Sokko dem ba wane lépp loolu lépp li ma la wax rek sénégalais yi nit mooy dem koo xam ne bi jegeñ naa euh, yaay ko kër dem fexe ba dem ko ñoom ko miin na ko fexe bu am fa vidéo daal di koy yónnee Adamo ngir lan te Adamo te lépp guerre la te euh, vidéo boo ko yónnee Adamo Adamo da koy neexal da koy jox xaalis danaan ko yor naa ay preuve loo def nag arme bu mën a jël ba léegi léegi maanaam nit Adamo dana gën a mën a joxe xaalis kon non Adamo nag waaw Adamo wax dëgg yàlla bon nag yëpp bon mais borom baax la ci benn côté ci wàllum parfois ma gis mu def ay social ay jàppale ay doomu aadama vraiment démb naa dégg naa rek démb Pawlish Mbaye ne bi muy ngénte démb aadama jox na ko un million cinq cent moom côté boobu jàmbaar la fi borom baax la mais lenn li def man maa ngi koy koy ñaan aadama ngir yàlla mu bàyyi ko dafa am jabar jabar yoo xam ne bi Sénégal macha kenn daq ko fi jabar mu wàññi tuuti xoolaat boppam bu baax xam ne kat lii lépp ci ay nit li lay mujj day jeex muy soko sogo sogo sogo chaque su chaque jour non non sogo sogo mënoon a dafa a dafa dof mhm. a dafa réew mënoon a dafa dof ndax saa bu ñëwee di def ay vidéo day wax di saa bu defee live day saaga kooku kooku kooku nag Sénégal ku ko nawloo ba toog mën a taxaw une temps di seetaan sogo yow yow yow la rek mais sogo Sénégal na waruñu ko nawloo sax Sénégal soko mënoo mënoo ni soko kii la mën a dimbali Sénégal wala mas na koo jàppale amut mhm. soko daal leen la fi def def laa yafam di saaga bu fekkee yaay moomut fu mu dëkk nag mu nga réew ma depuis 2005 ba léegi mënu koo defar fu mu dëkk bu yow moo xam ne torox waaw mu ñibbisi waat mu jéem a ñibbisi toog 2005 ba léegi ku fa mënut a tabaxal sa yaay am néeg mu dëkk ci ah bu yow nga ñibbisi waat waaw ñu xoolaat seen bopp bu baax waaw Cheikh Ahmed Cissé moom jur ñuy wax kooku gor su yàqu la mais gis nañ ne Adama dafa wane kër soo ko encore génn naa def live tey mu ngi ci live nii ni may wax yow. Mhm. di wane 2005 fu mu yóbboo yaayam euh, Espagne. mais wanewul kër seen kër. Mhm. comme day mel ni kon Adamo li mu wax ne kër ñoom yaay Sokko ni la mel dëgg la. Mhm. donte ko mu ngi ba pare nijaayu Sokko. boo bokkal yaayam ndey ak baay. moo woo Adamo moom la woo mu yàq Sokko. loolu loolu ci gis. non nijaay. dëgg la ma de lépp pour man boo bonoon lépp li ma la wax rek est xam nga Adamo li ma rek da leen a gën a tabe ci benn côté maanaam Adamo da leen di caw ah, dafa neexal dafa leen a neexal dafa neexal nijaayu soko loolu moo mën a nekk xam nga Adamo loxo bi gaaw na mën na ko yëkkati benn deux cent mille teg ko ci taabal ji pour am ah, image ah, paa yi xiif yi nga xam ne yoruñu lu lekk ah mais Sénégal gars yi nga amee nu ne xaalis gars yi li ñuy def loolu ji gën a daw idaal loolu gars yi li ñuy def loolu di gën a ndaw mais soko daal li ma koy conseillé. kii la kii kii la mu ngi nii mu te imaam la teg ci encore moo yàq soko mu koo daf koo koy dégg. soko génne ay vidéo yi mu doon yóbbu yaayam euh, soko ngi nii xoolal yaay soko ngi nii Espagne 2016 soko génne loolu mais génnewul maanaam kër yaayam daal ni mu mel daal aadama moo génne mu nekk loo xam ne ñaaw na trop. ñu ngi li ma ci xam mooy leen. vraiment yaakaar naa daal Sokko bu fekkee mënut a am kër gu mu dugal yaayam ba doom yi cinq ba léegi mu nekk réew mu bu yow ñibbi si waaw mbay mu yees mi kon bu yow ñu jox ko ci tool yi mu bàyyi. waaw loolu laa xam daal ndax parce que nit mu looy def maanaam te mënoo cay gis sa bopp nga def ko cinq 2005 ba léegi. yaakaar naa ay 12 ans jëm kaw munoo ci sa bopp munoo am kër goo dugal sa yaay bu yow nga ñibbi si quoi parce que nit moom njariñ rek booy dund te mënoo teral sa waajur dem ba réew mënoo teral sa waajur ñibbi si nga bàyyi waaw leen da wax ne daal en tout cas ñaaw na trop image yi di daw ñu tudd seen waajur yi ci ñàkk fay di ay jàppal bàyyil ci benn amul sens waaw di gën a bédaamee aadamoo man aadamoo man vraiment man du question sax dara mais aadamoo dama koy naw parfois. dama koy naw parfois ci ay definam su ma gisee ndax man dama bëgg a Idaly dama kuy def social dama ko bëgg. te Adama yenn saa yi mu fekk kaayu critiqué fexe ba loolu jógee fa defaru waaw fexe aada des na noo xamante nag. ndax euh, parce que yow yaa tax Adama bu ma xawee xam sax yow yaa tax. yaa ma ko mos a présenté benn jour. day def ren contrôleur mais nit ku baax la nit ku bëgg nit nit ku mën def social la. Mhm. donte maag moom sequñu affaire joxante mosuma jox dërëm mosuma moom guerre la mais teewul ku baax la day dimbale waat doomu aadama te man mhm. lu may muy def lu baax. ndeysaan da nga baax ku bëgg ku baax rek nga bëgg. mais day def lu baax et social ku nekk. Mhm. te tax ni la lu mu def lu mu jàpp boo ko nee bàyyi mu bàyyi te ku nit ku baax la. aada nit ku mën social la. aada soo koy dem sama xarit la damay wax soo koy dem sama xarit la dama lépp dañuy déggante mais fan yi daf maa xawoon mere fan yi mhm. gëj naa ko dégg woo na ma sax tax ma di ma saaga naan ma bëgguma Wally Seck ak nangam nangam mais sama gars la moom. Mhm. mais gis nañ gis nañ tam benn histoire aw sudi mhm. ak Sogo ku nekk xam ne nañu meram mais instant yi ci koowul amertisel yi ay diggante Gambie Sénégal ak affaire yooyu aw sudi bàyyi na Sogo dem joindre Adamo ba wax wax lu ci aadama sogo ne yor na lépp loo xam ne ay produits sogo yor na ko ñu ngi mhm. mais maanaam li ma la wax rek geeru aadama ku ci nekk sa suur nekk ci geeru sogo mhm. nekk jigéen nawloo ma man jigéen ku baax ku nekk may gis may geer ak aadamoo di geer ak sogo nawloo ma la jigéen ku baax du nekk ci réer boobu noon chaque jour nekk ci internet bi di saaga ndey idaale loolu ñëpp ko man man mii man naa ko yaa xam nga ma la wax bu baax. waaw mais dama leen man naa ko. man naa ko mais du ma ko def. non non ma ragalu ma du ma ragal de mais dama bëgg ku ma naw dama am ay waajur dan sama yaay bu gisoon may def lu ñàkk fayda du ko neex sama yaay su ma nekkoon ci problème tey du nelaw. kon tamit maanaam nit boo nekkee tamit lii da sooral sóoraale say waajur. Mm-hmm. sóoraale ñi lay bëgg sóoraale say am di jàmm say ñi nga xam ne dañ lay bëgg te yàlla tax. Mm-hmm. wa noppal leen noppal defal loo xam wax loo xam. Mhm. soo tëddee mën a nelaw. Mhm. loolu mooy noppal say bopp noppal képp ku la bëgg. Mhm. waaw mais sax suur nga ne ci internet bi nekk jigéen de saagaanteeg ay góor ku ne ci internet bi di saagaanteeg moom. ndekk jigéen nawloo ma la. du nit ku baax nit ku baax du ko def. aadamoo wax dëgg yàlla ay jëfinam rafetul dara. mais soko moom man dama yaakaar ne bopp bi daa tourné quoi. Ah non soko bopp daa tourné. ndax li muy def nii du sagoom quoi mu gën a xoolaat boppam xam ne dafa yor waajuram ñu ne ci internet di wax sa waajur loo xam ne mi neexu ko te sa waajur yëgut géntut mu ngi ci kursam di jaamu yàlla ah di werd nekk sa suur. dem na ba wax ne euh, sama mbokk nañ ma ñoo yàq sama yaay ba mu feebar ñoo yàq sama yaay ba liggéeyam yàqu moom sa bopp ne sama mbokk nag yàq nañ sama yaay pare man bëgg ma yàq mhm. bu ñu reyee sama yaay wala ñu lekk ma nañ ma bàyyi bu ma lekk wax na xam ne mu laaj dina ko wax mhm. comprendre mhm. na loolu ba ne bu ñu reyee sama yaay tey mooy gedd naa Sénégal bàyyi naa Sénégal euh, loolu mu wax noonu nan nga wax gi soko daal li ma la muy yàq ko yàq ko yàq ko ba sama yaay liggéeyam yàqu ñu topp ma man mii ne duñ ma bàyyi ngir yàlla bàyyi leen ma sama yaay daf maa yónni yàkkamti ma sama mbokk yi ñaan leen ma wàcca xanaa ay dëmb ngeen du ngeen ma bàyyi ngeen may lekk dégg loolu sama mbokk yi ay dëmb ngeen mu nekk loo xam ne wax rek li ma la wax rek est-ce que bu toppoon ay mbokkam itam ay mbokkam ko def lii non li ma la aadama wax day nekk dëgg mm-hmm. soko xel est-ce que lu aadama li mu wax nekk mm-hmm. bu doon tegg tuuma. Euh, moom Sokone ba mu xamee ne defalul dara yaayam mënoon naa sutural boppam mais surtout mu ngi ak Adamo lu muy bon bon wax dëgg mu ngi mu ngi jàppale yaayam mu ngi ci takk na jabar ñëpp gis na jabar macha allah mais soko kenn mënut a xam lu mu doon soko la nga xam ne bu ne ci internet bi bu ne kar saaga na live ko wax mu saagal ndey kooku du nit ku noo xam ne Sénégal nawloo na ko. sama jabar la. ba léegi mu ngi ci ay yaay soko nekkaat nii fii sama gàlle la mais ñëwaguma ci sama gàlle. Ah. sama kër ñëwaguma fa. nani ñëw xoolal mi ngi nii nee na ci sànce la de soko nee ci sànce la de xoolal kër yaayam. lii lii man damay ragal sa yaay génn fa kasalu. dëgg la barke ba Babacar si fii xeer bu la ci laal nga tataanoos. yaa toj sa cottu nay lii. deux mille tey non Sénégalais ñu waxtaan nag deux mille ba tey nga ne yaa ngi ci sànce waaye jëlal ma kër gu katt ndeyam gi. lii su ko yaa sa copp day waay dañ ko di de xoolal douche baa ngi nii moom laa leen di wanal. defar nañ ko léegi joor jee fa jaar. moo ko jox douche bu muy day di yaay ji sant ko de bu du woon sa yaay ay si wala ay patuwaas dañ ko di de douche baa ngi nii ba tey waroon naa leen ko kii sama jabar la léegi nag sogo lu ñaaw la comme que wane naa say ah, lan nga ñaaw lu loo xam ne bi maanaam kenn waru ko mën a def sa waajur comprends nga Adamo it tamit vraiment man di ko wax benn côté moom moomit ngir yàlla li suul yi buy buy wax ci Sokh na wax ci Sokh bu ñuy waxante lu ñaaw geer la mais guerre entre waajur ak waajur amul waajuru Sokh ak waajuru Adamo guerruñu ñoom ñaar ñooy guerre ñu ni guerre nan waxante seen bopp lu ñaaw yaayu soo ko yëgul géntut ngir yàlla war suul yi nan ko bàyyi nan ko bàyyi toroxal kenn ko toroxal kii jaay la man lii bu dee maire bu bëri korso lii sax mën na ko ñàkk a jig mën na koo rey li baaxul gor kenn du ko toroxal Adamo maa ngi lay ñaan ngir jëmi Serigne Touba ngir jëmi Serigne Babacar Sy mi nu bokk. waaw li dafa ñaaw trop li dafa ñaaw trop. sama kër a ngi nii sama ngi nii dégg nga. di nga gis sama yaay léegi ñu dem. xale yaa ngi nii kii sama doomu mag lan sama néeg yaay ngi nii xoolal sama néeg bi rek barki Serigne Babacar Sy xoolal ventilo yi fay taxaw soo yaa toj sa jotu nay tëraloo sa yaay xoolal ventilo yi yow ni xoolal soo ko xoolal kër gi ni mu lay tiimee xoolal kër gi ni mu lay tiimee xaaral sama néeg yaay ñëw xoolal lii samay doomu mag la ñii xoolal sama néeg yaay bi nim mu mel saal bi dina ñëw kii Anta la. sama yaay dina génn léegi xale yaa ngi nii di foo ci microvelle bi tere baa ngi nii xaaral rek kër gaa ngi nii njaboot yëpp sama yaay ngi nii sama yaay ngi nii. waaw man li ma ciy wax mooy leen vraiment euh, muy soko muy Adamo man geste yu mel nii su ma gisee nit di ko def sax man du ma la naw parce que man mën naa la wax lu nekk. ñu yem sama diggante yow mais waajur saa boo demee ci ba dugg ci rek. maanaam ñaaw na trop trop trop trop. même Sokko bu waajur bu defarutoon dara waajuram image yi muy génnee dafa ñaaw Adamo ngir jëmi Serigne Babacar Sy lii ñaaw na trop. aada lii ñaaw na trop. vraiment jot na a da nga marié marié bu bees xale bu rafet a am a nit na kenn du ko topp ba sës. Sokho bu fekkee deful Sokho moom man waxumay waxam Sokho dafa dof Sokho dof la. Mm-hmm. ndax Sokho bu nekkee ci internet mënut a wax ñaari paa te daggu saagaaw day mm-hmm. di wax wax yu ñaaw wax yu tegginewul kooku du ku Sénégal nawloo. Mm-hmm. Sénégalais bu ñëw di déglu Sokho sax maanaam yow dan laa war a rey Sénégalais warut a déglu Sokho. aada mooy sax parfois mu teg ci taabal ji lu baax parfois mu mun ko neex mel day changé aada yenn saa mu wax lu baax yenn saa yi mu wax lu baax yenn saa yi mu wax loo xam ne ndax baax mais aada ngir yem Serigne Touba ngir si mbéyum Serigne Babacar si mu ñu bokk bàyyil ñu ko bàyyil ñu Sokko lii ngay def ñu amul benn sens munoo yàq Sokko ba am ci ndam munul nekk Sokko mënu laa yàq ba am ci ndam Sokko nag dof la ba dof la yow aada nag yaa ngi réfléchir tuuti sa xel day ñëw ngir ngir yàlla war sóol yi baal mu sedd man maa la ko ñaan aada moo baal mu sedd. Eh, waaw. ñu jóge ci loolu rek waaw wala boo amee leen la wax ci Adamo ñu dugg ci euh, sa diggante ak mariasin may si biir idaali waali ba may wax ci moom ba ma koy bëgg yàgg na trop boobu commencé wu ma wax moom mais daan naa dem ay soirée am du am sax billet dana tëgg soirée Baye Ndiaye Alburax Grand Théâtre su ma su ma ñëwee waaw su ma ñëwee duma am mën a am billet mais damay damay ñëw fexe gaa yi tëbal ma Grand Théâtre nu nga gis tam naa ko ngir Waly. barke Serigne Touba. boobu TikTok dafa nga TikTok. non non boobu téléphone sax simple laa man bu Waly ma koy bëgg a amoo réseaux sociaux amoo sax téléphone téléphone simple laa yor grand théâtre tëm naa ko soirée Alburax Baye Ndiaye fenêtre bi laa jaar dugal sama bopp waa ji xëcc ma ma dugg ma dem yéeg ca kaw toog VIP jour boobu laa njëkk a yéeg soirée Waly. Mhm. Waly doonu ko yàgg bëgg Lati Diop dégg ngeen bàyyi Dior Dóoba dégg ngeen bàyyi Dago Dago dégg ngeen bàyyi Koura may ah Serigne Soxna ay dara kenn moom. moom la ñu bëgg mu neex ñu mu naqari ñu. moo fi nekk Lati Diop dégg ngeen bàyyi moo fi nekk waale la ñu bëgg moom la ñu xam mënuñu ko bañ ci àddina ñoo am ku ñu gënal waale suñu àddina kon nag waale comme lem la ko waxee woon rek war nañoo gisante rek moom suñ ko gisut it maanaam li ma la wax mars de gens yi dañoo dem ba maanaam sës nañ. mars waaw mars damay génn mars. dama war ngay damaa war a gis waali. ah yéen waali mosu man waali dañ naa moom lu nekk. ba toog maa ngi non toog maa ngi moom mosu ñoo néew. maanaam maanaam xam nga dafa neex ngay sonn ci nit. ngeen toog waxtaan Aline Seck maa ngi koy wax barki dem ma ne ko ah Ida waaw ma ne ko Aline man waali yàgg naa sonn ci moom Papa Thion bi ko yàlla moomee. kër ga def naa fa ñaari fan yoo xam ne bii damay ñëw suuf suuf di jàpp ci liggéey ba ngoon ma ñibbi te xooluma kenn ngir bëgg waale kon xam nga ne man dama bëgg Wally te yàlla tax ñun Wally toppee ñu ko alal mais booy yi ma daan saaga ndax Wally Seck boo yooyu tey dañuy jëriñu ci Wally te man mënumaa jëriñu ci Wally comprends nga ay 6000 problème ma wax lu ne ay wës boo yooyu yëpp ma daa te man mënumaa gis Wally. dëgg la xam nga lan moo ko xam euh, da nga doon génn moo tax souvent yow. Mhm. nga def nga def pare toog fi nga toog. Mhm. voilà loolu moo taxoon. Mhm. loolu moo tax mais. ñàkkul rek wax waxal lan nga bëgg li ma bëgg mooy leen idaal yi. idaal sama waay la. jàmm ñal busuk wala man sa bi